dikkati nañu fii dikkati nañ fii ci ay bés yu am solo pour Sénégal waxtu bi may wax ak yéen ci biir Thiès xaalis bu bëri mu ngi circulé waxtu bi may wax ak yéen ci biir Mbourkat ñu fay tànt di ne dañuy jox gars yi ay titre foncier gannaaw ba ñu tojee këru jaambur yi tooñ leen dañu jàpp sénégalais yi ay ay ginaar lañu bu élection jotee ñu jël alal di ko wis ci suuf maanaam ñu fi ne woon ñaar fukki at Thiès dénk leen seen baat wóolu leen ñu yaakaaroon ni bés dina ñëw ñu mën a suqali Thiès suqali senegaal ñu dem dal ci mburoog soow mi jël alal ju dul jeex ne dañuy ger Thiès waay te ñoom xam nañu Thiès kenn mënu ko ger ndax vingt ans yi ñu fi nekk ñoom vingt ans yi ñu fi nekk Thiès may leen baat amul yu nguur bi fi jaar lu ñu essayé wul ngir gertees waaye ngir jënd par exemple centre Malick Kayre 2017 taxaw naa fi nee leen centre Malick Kayre du centre bu ñuy jënd te tey jii nii ki ko daan gagné te ñàkkoon ko dugal na alal ju bëri toog di ger doomu Thiès pour gagné waat centre Malick Kayre dugal nañu alal ju bëri. pour guerre Thiessois yi ne dañuy jënd sant Ali Ba dugal nañu alal ju bari ne dañuy jënd Thiès dama ko waxee woon 2017 ba ma taxawee jàkkaarloog ñoom Macky Sall moom lay bamtuwaat ñun dañu bañ fa ñu war a bañee moom loolu laa leen waxoon 2017 bañ nañu fa ñu waree bañee mu ngi des ci yéen le peuple de Thiès gars duñu ñëw duñu ñëw nangu seeni suuf nangu seeni i kër bulldozer ko ngeen gis ay mat yu taxaw di jooy seen i rongoñ ñu nangu ay Mbour 3 Mbour 4 pàccoo ko def lu leen neex waxtu ñëw nga xam ne ngeen war a yebal seen i doom yu ngeen xam ne xam ngeen ni kenn mënu leen ger assemblée nationale ñu war a lijjanti loolu ñoom ñu jël ay 100 millions 200 millions 300 millions di dugg ci biir quartier yi particulièrement Grand Thiès ñu ne dañ fay ger nit ñi

wala train baa ngi sifflé ana NSTS lan mooy xëyu Thiès lu muy Jakarta nan la poste santé Thiès yi nan la école Thiès yi nan la marché wu Thiès yi nan la deku Thiès yu mel tilim lëndëm c'est insécurité ñu ne dañuy gagné Thiès bu ñu gagné Thiès ñu xam ne kon bu boobaa waa Thiès xamuñu lu ñu bëgg le 31 juillet na woon fa woon mais bi yoon bu ñu juum ci tànn bi gars yi fi romb yi picc buy sax bi nañ leen fàtte te tànn bulletin bi aar Sénégal muy aar Thiès aar suñu chemin de fer aar suñu école aar suñuy entreprise aar surtout jukko sénégalais yi nga xam ne guerre bu tar bu fi nekk dina wàññeeku